yéen euh, journalistes yi nga xam yéen a ñëw teewe point de presse bi ndaxte kuy wax da bëgg ku la dégg ku woote dafa am lu tax nga woote kon nag suñu wootee yéen ngeen ñëw pour fésal li nga xam ne moom lañ nar a wax kon yéen war nañ leen a sant gërëm leen yaakaar naa présentation bi leer na le coordonnateur ñëw na ci la camarade Dianté présenté na délégation bi nga xam ne sunu doyen Habib si moom moo ñu magal nga xam ne initiative la bu nu jël muy ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci réew mi yoo xam ne gis nañ li ñuy teg Ousmane Sonko muy candidat bi nga xam ne mooy candidat bi nekk ci xolu sénégalais yi sénégalais yi nekk fii ci réew mi ak sénégalais yi nekk bitim réew. kenn umpalewul ni candidat bi nekk ci seen xol mu ngi tudd Ousmane Sonko ñu bëgg a jëm ci ay xëccoo réew mi ci 25 février 2024 yu amee nii njariñ pour Sénégal parce que ñu war a dem ci yeneen jéego ñëpp gis pexe yi nga xam ni moom lañ teg pour que sonk moom mu bañ a bokk ca xëccoo ba leader yooyu nag waxtaan seen biir. daan dañuy teg benn kuréel bu tudd leader allié du kandidaa Ousmane Sonko Lakos kon tey yéen journaliste yii fi teew ci seeni xalima ak seeni xarala ci la sénégalais yi di yëge ni bis na kat tey altine ñaar fukki fan ak ñett am na ay sénégalaises ak ay sénégalais yu taxaw tem pour jëmmal candidature Ousmane Sonko pour que lii nga xam ne moom lañ jublu le 25 février 2024 Ousmane Sonko bokk ca xëccoo ba ndaxte réew mi kenn donn ko ci say maam wala nga donn ko ci say waajur ba war fee taxaw daan ne kii mooy bokk ak kee bokk ci sa coobarey bopp ak ci say intérêt bopp te loo xam ne sénégale yi ñoom décidé luñ ko seen bopp. kon loolu moo tax ñun ñi nga xam ñoo waxtaane loolu nga xam ni ay liider yu bari lañ ñun lan yabal ñu taxaw fésal ko waaye ñi ci sunu ginnaaw ëpp na foofu lii te comme ni ko coordonnateur waxee sànq bala moo yàgg dina leen woo yéen journaliste yi def ndaje mu gën a yaatu pour leeral leen ñan ñoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jëmmal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 déglu ñaari parti yépp ñu wax parce que maa fekkee bokkul ak dan maa nettali ñun ñii danoo fekke moo tax ñu mën a ñëw wax sénégalais yi lanu gis ak lanu dégg tribunal bi bi ñu fa demee Ziguinchor lanu gis mooy ku ñu tuddee agent judiciaire de l'État bu tudd Moussa Yoro Diallo boo xam ni moom lañ wax ne moo ñëw ca tribunal ba nekkal fa nguur gi d'abord bala ñuy yegg ci li tax ak mu mu ñëw fa wala mu waroon faa ñëw ak lam fa def mais d'abord question bi ñu njëkk a posé wu mooy waa mais agent judiciaire de l'État waa moom luy yoonam ci ab sénégalais boo xam ne dañ ko génn ci list électorale yi muy xeex ànd ak ay avocaam parce que ay droit am la jàpp ne dañ koo salfaañe muy xeex pour duggaat ci biir fichier électoral bi lan moo ci yoonu agent judiciaire de l'État loolu mooy première question bi sénégalais yi war a poser pour mën a xam li nga xam ne moom la Ousmane Sonko di dund depuis deux mille vingt et au moins mais mën nañoo wax sax depuis mu def percée bu rëy depuis les élections de deux mille dix neuf parce que Ousmane Sonko jaay doole bi ñu koy jaay doole mi ngi déparé ci deux mille dix neuf bi nga xamee ni def na résultat yu mucc ayib te man ca jamono jooja ma ni bu élection yi jaaroon yoon pourcentage ba ñu ko jox am na lu ko ëpp ndaxte jamono jooja Ousmane Sonko ku ne xam na ni dayo ba mu amoon leen ko joxoon ci résultat dooleem ëppoon na loolu waaye ab tappalekat boo xam ne yor na organe de presse bu tudd ma jàmbal jaañ bërk démboo njaay wax na ni ba élection ya jàllee ba dem sax tuumaal ab kilifa diini daan ne toog nañ ñu ne ko mu ne leen Ousmane sonk mii su ngeen jógul ci moom résultat yii mu def ci élection 2019 yi bu ñu demee 2024 day gagné kon nag pour nga xam li ñuy teg Ousmane Sonko ci jaay doole ak ci loo xam ne salfaañe ak ak yelleefam la foog nga déparé ci li nga xam ne moom la ñu mébat ci Ousmane sonk kon li nga xam ne moom moo am mooy bu ñu ko tegee ci yoon agent judiciaire de l' lu tax ñu logé ko au ministère des finances c'est parce que pour muy préserver les les les intérêts de l'État du Sénégal loolu moo tax les intérêts financiers de l'État du Sénégal moo tax agent judiciaire de l'État jóg bu ngeen seetloo yéen ñi ñëpp avant deux 2012 mun naa sax avant deux 2019 kenn xamu ci woon kan mooy agent judiciaire de l'État pourquoi parce que booba procès yi ñu ko daan dégg mooy ñu ne ArcelorMittal jàppante na ak État bu Sénégal contrat ya jaarul yoon wala jaar na yoon nar nañoo daan état bu Sénégal mu dem taxaw layal état Sénégal pour mu pour ñu bañ koo gagné parce que suñ ko gañee état Sénégal day fay ay milliards loolu muy rôlu agence judiciaire de l' état depuis président Macky Sall nekk fi nag comme politiser na réew mi yëpp banqaas yëpp ci la jëlee agence judiciaire de l' état jox ko comme mission ni ko fexeel ba bu Ousmane sonk bokk ci élection deux mille deux mille vingt quatre kon agent judiciaire de l' état yoonam nekkuloon ci procès bii nga xam moo amoon Ziguinchor mu ñëw fa ànd fa ak koy dimbali tudde ko ab expert électoral am moom mu jóg plaider sol costume costume bu rafet mujj ci carax ndaxte ba muy plaider costume bu rafet la la soloon ak karawaat bu rafet waaye ba mu plaider ba pare ñu jox avocat Ousmane Sonko yi ñu fët la mu fa wax génne ay argument yu leer nañ mu daal di summi veste ba sànni yolamal karawaat ga dem wuti carax parce que xam na ni nag caafa ngay xëm avocat Ousmane Sonko yi wane ni lañu ñu fa plaidé ñoom moom agent judiciaire de l'État ak avocat état ba fa nekkoon lañ fa plaidé amul dara loo xam ne aj na ngooñ ca lañ fa wax parce que lañ fa wax mooy Ousmane Sonko mënta saisir tribunalu Ziguinchor ndaxte dakaar la dëkk alors que ku ne xam na ne ci élection fa nga bindu di fa wootee ba nekk fab maire bu ñu la jaayee doole génn la ca liste sa dëkk ba ngay jiite booy xeex tribunal ba ka ca dëkk ba ngay jiite nekk foofa ngay dem daan ni d'accord ma ci liñ ma génn ci liste bi kon loolee ñu plaidé woon kon ay tappale moo taxoon ñu koy plaidé beneen ba ca plaidé mooy ni li nga xam ni moom lañ ko moom lañ ko may mu dem def recours euh, au niveau de de Ziguinchor du tribunal d'instance de Ziguinchor ñoom avocat nguur gi ànd ak agence judiciaire de l'État ñu ni délai ba mu ko waroon a defee romb na juróomi fan ndaxte depuis le 19 la yëgoon wu ñu dem nañ jox ko ne ko génne nañ la ci fichier électoral mais dañ ne Ousmane Sonko waroon na koo yëg nit génne nañ ko fa kon booba la waroon a def recours te defu ko kon ñoom jàpp nañ ni délai ba mu ko waroon defee romb na kon ñaari yooyu lañ ngoyoon parce que xam nañ ni buñ duggee ci biir dossier bi rek danay ñàkk parce que Ousmane Sonko dañ koo daan ñaari ati ban ko koy daan fekkiwu ko état euh, euh, ñu tudde ko ci yoon une condamnation par contumace yow mi ko min daan te fekke ko ñu tudde la un contumax léegi nag Ousmane Sonko xam ni ñii kat ñoom ci tappalañ nekk moom demuloon ca tribunal ba ndekk lii la ko yàlla doon xaare mooy ñoom ñu patax pataxee mbir ma dem atte ko ci moment boo xam ñoom ñoo ko doon garde wala ñoom ñoo ko barricade woon léegi nag yoon ñëw ñu dem nag def l'erreur de leur vie dem jàpp Ousmane Sonko yoon ni boo jàppee koo xam ne ba nga koy àtte fekkewu ko soo ko xasee jàpp la nga ko la nga ko daanoon yépp day nërmeelu da nga koy àttewaat te ñoom comme ni ma ko waxe ba ñuy topp Ousmane Sonko lañ ko toppee woon mooy daa siif ab xale bu jigéen ba noppi yore ñaari arm ñu dem ba ca procès ba ñu ni léegi siif amul ñaari arme amul waaye daal daa nax xale bu jigéen bi ma ne woon ca jamono jooja mooy sàmm bu xëy yóbbu ay nag ngoon jot mu indi ay bëy kon nag ñii nekk ci tappale bu leer nañ mu leer nañ kon ñoom ni Ousmane Sonko li leen intéressé ci moom mooy bu mu nekk candidat kon nag juge bi ca Ziguinchor jël ay responsabilité ni leen yéen ba ngeen demee euh, euh, euh, di jox Ousmane Sonko acte de radiation boobu ngeen wax ne génn ngeen ko ci fichier bi waaw léegi ñu ne léegi ñoom Ousmane Sonko dan koo daan ñaari ati kaso yoo xam ni da koo war a tëdd kaso waaw léegi ñu ne ñoom sur cette base lan ko génne ci fichier électoral bi alors que procès booba Adji Sarr def na appel Ndeye Khady Ndiaye def na appel kon mooy procès ba jeexagul mais naam jeexagul ñu génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi tey juge si Faye du tribunal d'instance de Ziguinchor déglu leen xam ne ay tappale def parce que ba ñuy servir Ousmane Sonko acte de radiation bi au lieu ñu fekk ko fa mu nekk ca tribunal ca euh, ca prison bu Sébikotane nga xam ne actuellement la ko yóbbu hôpital mooy dafa grève de la faim ba sonn ñu yóbbu ko ca hôpital ba pour mu faju waaye fa mu nekk mooy mooy mooy prison bu sebi Sébikotane léegi ñu ne ñoom duñ fa dem yóbbul ko ko parce que ñu ko ko yóbbulee day wane ne ñoom jàpp nañ ko te bëggu ñoom wane jàpp nañ ko. parce que buñ xasee dem ca prison ba jébbal ko fa aw kayit day wane ne kon jàpp nañ ko te ñoom danoo jàpp ne xamuñu fu mu nekk ba maître Bamba Cissé ca biir procès ba daan ne waa léegi nañ ma wax Ousmane Sonko xanaa dañ koo xaaj ñaari nit kon Ousmane Sonko ban jàpp Sébikotane ak Ousmane Sonko ba ñu xam ne kenn xamul fu mu nekk. kon nag juge bi contrairement ak les agents judiciaires de l' état wax sénégalais yi waxul nit ñi dëgg juge bi dafa déglu ñëpp nee naa leen dafa ñëw solo ba rafet mujjee ci carax ba mujjee carax ya la mu doon def mooy ni muy def ba yàq procès bi. ma méngale woon ko am match boo xam ne dóor nañ la 2-0 ñu ngi ci prolongation yi mënatoo égaliser ngay xool noo yàq match bi. Jàllale TV. daan na kee arbitré sax moom mënatu la arbitré match bi daan na juge bi mënatu la juger juger ci biir tribunal defi tappaleem xam ne yooyu yëpp du dem mu dem taxaw wax ay waxi kasaaw kasaawam daan ne nag léegi day génne déclaration ne léegi lañ fa décider ca Ziguinchor kenn du ko appliquer kan mooy agent judiciaire de l'État moom mooy kan bay wax juge yi li nga xam moom lañ àtte kenn du ko doxal kon nag lii moo xew ca Ziguinchor juge Sabassi fay dafa déglu ñaari parti yi gis avocat Ousmane Sonko yi xarañ gënu xarañ parce que Ousmane Sonko intelligence bi mu am mooy avocat yi gën a taq ci Sénégal ñoom ñoo koy défendre ñu jóg taxaw devant le président du tribunal démontrer pièce par pièce li nga xam ne moom la avocat tappalekatu nguur gi ak agent judiciaire de l'État nga xam lañ fa wax ajulum ngooñ comme ni ma ko waxee tribunal bi àtte ci dëgg wane ne Ousmane Sonko ni ñu ko génnee ci fichier électoral bi jaarul yoon léegi nag nañ ko nañu annuler l'acte de radiation ba noppi nañ ko delloo ci fichier électoral bi loolu mooy ñaari décision yu tikkee Ziguinchor léegi lu xew bi loolu amee ñépp di xaar kañ la décision juge bi di génn juge bi génn décision avocat yi Ousmane Sonko retiré décision bi dem jox ko mandataire Ousmane Sonko Ayib dafe mu ànd ak ki nga xam ni moom mooy huissier bi nga xam moom moo waroon a servir la notification ñu ànd dem à la direction générale des élections première njombe bu Tanor Thiendella Sidi Fall def sama mbokku ceddo boobu mu jëw daane leen du ngeen fi dugg waa léegi moom première jour bi mu ni moom tey du recevoir léegi ñëpp ne kon xëy na tey daa am ak gàllankoor kon léegi na ay dafe dellu bu bu ñu bu ñu xëyee ñu xëyaat ñëw mun leen sax tey faaf nag du ngeen fi sax dugg mais tanoor Tanor la Fall moom mooy kan bay tere nit koo xam ne sénégalais comme moom la ëpp ko benn droit ci réew mi taax yan fa tabax ca DGE moomu ko tabaxuwuñ ko alalam tabaxuwuñ ko alali waajuram tabaxuñ ko alali mbokkam ñu tabax ko ci alalu Sénégal ñun sénégalais yëpp ñu yem ci parce que moom moo fay jiite. te bala moo yàgg léegi mu dem retraite mu bëgg a empêcher ay sénégalais yu am droit dugg fa même bu dee la ñuy sàkku mënuñu koo am dañoo am droit dugg fa ba ca bureau ya toog jébbal la ñu war a jébbalaate surtout que ah, un huissier boo xam ne dafa am acte bu mu lay servir nga ne ko yow doo fi dugg pour wan leen ni état bu Sénégal actuellement fi mu toll mooy nguuru président Macky Sall ci jaay doole lay def ak ce qu'on appelle en droit voie de fait mooy jaay doole maa tey def lu ma neex Ayib Daffé parlementaire nekk mandataire Ousmane Sonko Ousmane Sonko jox ko lettre de désignation comme mandataire comme man ni ma ko defalee sama mandataire ak yeneen candidats yi ni ñu ko defalee seeni i mandataire jox leen seeni i këyit bi mu demee ñu xañ ko loolu cendee la gis ni Sénégal gépp ñu ngi wane ni leen jaay Ousmane Sonko dañ koo jaay doole du yoon lan la cendee la def génne ab këyit boo xam si moom mooy erreur bi gën a mag ci li nga xam ne moom la ministre de l'intérieur depuis mu commencé 2012 ak léegi erreur bi gën a mag bi ñu def mooy lettre bi cendee la génne di wax lu tax lu tax joxul Ousmane Sonko wala le représentant de Ousmane Sonko lu tax joxu ko ay fiche de parrainage. moom cendee la lu mu wax. cendee la wax ci këyit bi nga moom la jébbal sénégalais yi di layal li mu def ci njombe mu ne daa sukkandiku moom cendee la. ci ab lettre boo xam ni ministre de la justice moo ko yóbbante la 11 juillet bu ngeen fàttali ko usman Sonko ñu ngi ko daanoon le 2 juin léegi weer ak lu mat fukki fan tegu ca nee na ba mu amee weer ak fukki fan gerte Ousmane Sonko maa ngi leen wax ne bañ ko daanee le 2 juin Adji Sarr dane d'accordul ci leen ko àtte parce que moom xam na ne kàccam yi leer na mu bëgg a rëccatiku daan ne moom day porter day day day def appel donc kon def na appel. Ndeye Khady Ndiaye def appel waa léegi procès bu ñu la xësee jugé en première instance nga def appel dañ lay àttewaat waa kon mooy àtte ba jeexagul ci leer lu leer naa ñu àtte ba jeexagul parce que comme am na ñaar ñu def appel mooy àtte bi dañ koy dañ koy continuer waa léegi malgré ça un mois après Thiendella la dem génne Ousmane ko ci fichier électoral alors que àtte bi jeexagul léegi Thiendella la. leneen tegu ci mooy Ousmane Sonko ñu dem jàpp ko faf yëpp ya na a jaxasoo parce que loi bi moo ne boo àttee nit te fekkewu ko boo ko xasee jàpp dañuy day anéantir le jugement de plein droit léegi sénégalais yëpp li ma benn mag wax ne ma ñëpp a nekki juriste ndaxte nguurug Macky Sall lépp jàpp tëj nañ ko mandat de dépôt placé sous mandat de dépôt euh, garde à vue ñëpp a xam lu muy signifié léegi ñëpp a xam li jëm ci mbirum jàppaatee euh, que jaay doole parce que nguuru Macky Sall loolu moo fi am léegi nag li am mooy moom cendee la dani Ousmane Sonko dan koo daan kaso ñaari ati kaso yoo xam si pourtant appel am na ca nee na mënu koo xaar da koy génne ci fichier bi yemu ca ñu dissoudre partem bi ñu dissoudre partem lu ñu def yéen ñëpp gis VDN bi bi ñuy xotti photo Ousmane Sonko bi nekkoon ci VDN bi ak coxorte gu métti lañ ko xottee alors que dañu dissoudre parti bi parti bi def recours pourtant jeexagul léegi comme dafa def recours mooy xanaa lu mu bañ a bañ a bañ Ousmane Sonko ba mënu koo gis ci photo moom président Macky Sall mënoon na ne ay nitam muñ leen rek dee leen xool photo bi tey muñ xëy na recours bi Ousmane Sonko def ne dañ koo dissoudre partem xëy na sama gars yi daan ma joxaat dëgg mais xaarul sax loolu dañoo dem xotti. photo ba jaay leen doole tëj siège ba dem tëj seeni antenne daan ne presse bi commencé leen wax ex Pastef alors que kenn atte waatagu ko yëf yi jeexagul c'est la même chose ñu ñëw léegi tey daan ne cendee la ni moom euh, li tax mënta jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am mooy nee na atte bi jeexagul <laughs> c'est extraordinaire yow fee atte ba jeexagul génn nga ko ca waaye fii. nee nga atte bi jeexagul waaye doo ko dugalaat mais sénégalais lii bu dul maa tey kon lan la kon nag lii am ci mbirum Ousmane sonk lu du leen dul jaay doole te li ci gën a garaaw de loolu de cende la ci lettre am xamal lu wax dañu ci lettre bi l'État a décidé de faire un recours maanaam état bi daa décidé def recours mooy defagul ko waa cendee la lu ci yoonam comme état bi defagul recours mais cendale vrai waaba jiiba c'est-à-dire suñu administration administration waaba jiiba ndax seen carrière lan moo ko fi jar xanaa amuli mbokk bu amee mbokk duñ ko woo ci ruq wax ko yaay kan bu dee moom am nay mbokk na ko ay mbokkam woo ci ruq ne ko cendale nag yaa ngi ñuy teg gàcce génn nga Ousmane Sonko ci fichier bi parce que juge moo ko décidé wala juge moo ko daan bokkul sax décidé juge moo ko daan nga nga interprété ce la ko juge ba daan te procès ba jeexul nga génne ko tey ab juge delloo ko maintenant ci biir fichier bi nga ne non non procès bi jeexul te pourtant bu njëkk ba nga koy génne procès ba jeexul woon waaw kon nag sénégalais yi yéen la ñuy waxal réew mi jaay doole bi fi am dafa ëpp dañoo bëgg ñu delloo Ousmane Sonko ci fichier électoral bi parce que loolu mooy yoon cendee la moomul réew mi ministre de la justice Sidiki Kaba moomul réew mi te ci la ñuy profité pour wax lee leaders de l'opposition ñoom ñëpp nañ ñëw bokk ci lakos avec sincérité quoi parce que ku yaakaar ne bu ñu éliminer Ousmane Sonko ci jaay doole yow da ngay mucc wala dangay ngay rëcc da nax sa bopp Ousmane Sonko lii Macky Sall di jëm ci moom li tubaab naan qui peut le plus peut le moins bu leader yi seetaanee ba Ousmane Sonko ñu jaay ko doole ñëpp xam ni dara mënu koo tee nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp damay dégg sénégalais di ci wax mais ñun dañuy waxtaan ak homme de droit yi. déglu nañ les spécialistes démb yéen ñëpp gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam ñi ñu tuddee ay agrégé en droit ñu génn seenum texte wax ni Ousmane Sonko fichier mi bu ñu ko ko joxul mooy état de droit amatul Sénégal jëratul ñuy àtte kenn ci ci ci ci ci tribunaux yi ñëpp gis nañ maître du Ndoye nga xam ne ñëpp xam nañ ni moom xarañteem Sénégal kenn weranteetu ko surtout que matière bi ñuy bi ñuy discuter nii moom loolu la jàng. ca loolu la spécialisé wu lu mu wax nee na Ousmane songo ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp amu ci benn bu ko ci mën a tee nekk candidat boo jëlee bu mambay ñaami li loi bi wax dani bu ñu la daanee lu ëpp juróom benn weeri kaso kon Ousmane songo juróom benn weeri kaso lañ ko daan tegul benn bis kon kenn mënu koo tee nekk candidat ci dossier mambay ñaami des fois ma dégg ay sénégalais naan est que du ñu génnewaat dossier mambay ñaam bu ñu ko génnee lu luñ ca man dossier mambay ñaam ba munuñu ko caa daan par cour de cassation du àttewaat lam mooy recours nga def dañuy xool ndax yoon yaag procédure yaag yooyu respecté nañ ko léegi nag li ñu man mooy ne respecté nañ ko kon dañuy confirmer la la décision du tribunal buñ ko confirmer mooy dossier boobu kenn mënu ko cee tee nekk candidat parce que juróom-benni weeri kaso yum dul tëdd lañ ko daan parce que yoon li mu wax mooy juróom-benni weeri kaso yoo dul tëdd wala au moins ñetti weeri kaso yoo tëdd oui il faut mu nekk juróom-benn weer yu teg il faut lu ëpp juróom-benn weer yoo xam doo ko tëdd wala au moins lu mat ñetti weer yoo xam tëdd nga ko kon nag Ousmane Sonko lañ ko daan ci dossier Mame Mbaye Niang bi diffamation de kenn mënu ko ceetee nag candidat parce que ponkal yi am xam-xam ci mbirum droit yëpp loolu la ñu wax beneen bi mooy bu aji saar bi nga xam nee naa leen ñaari at yan ko ca daanoon moom jàpp nañ ko faf comme jàpp nañ ko mooy dañuy attewaat léegi kon boobu mënatuñ ko fii attewaat ba ba ba mu yegg ca cëppaandaw ba li ñuy tuddee en France en français l'autorité de la chose jugée mënatu xajatu fi kon boobu dossier tam mënatuñ ko ceetee nekk candidat bu mujj bi nag moo gën a neexate mooy bi naan daa sàcc téléphone koo xam ne yow say militant ak say sympathisant soo nee leen 24 heures dajaleel leen ma 300 millions ñu dajaleel la ko waaye waaye waay looy doy ab téléphone ana ab téléphone yow loo koy soxlaa ba koy sàcc parce que kuy sàcc mooy loo xam da nga koy jëfandikoo Ousmane Sonko lu muy doyee sàcc téléphone kenn garde corps Ousmane Sonko sax soxlawul téléphone téléphone jàmbur ndax su ko bëggee ay militant Ousmane Sonko jëndal leen ko kon nag nañ bàyyi seen caaxaan yi Ousmane Sonko est candidat loolu la Lacoste wax mooy Ousmane Sonko Macky Sall bu bëggee tere Ousmane Sonko mu nekk kandidaa mooy élection du am parce que moomuñ ñu sénégalais yi nag lañuy waxal ginnaaw bi ñu waxee opposition bi leen jël leen seen responsabilité. na opposition bi yëpp taxaw pour yéene Ousmane Sonko jàmm. jàllale ci c'est important parce que gis nga booy xëccoog nit da nga koy ñeme. opposition bi seen intérêt mi ngi ci Ousmane Sonko nekk candidat parce que su leen Macky Sall su suñ seetaanee Macky Sall jaay doole mooy bu leen bu jaayee doole Macky Sall euh, bu jaayee doole Ousmane Sonko qui peut le plus peut le moins ñoom seen kaw la jëm. kon ñoom dañoo am intérêt ñëw taxaw ci dëgg pour que ñu am des élections inclusives mooy élections yoo xam ñëpp ay bokk kon Ousmane Sonko dafa am war a bokk. Mamadou Lamine Diante bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg bokk bokk capitaine Touré bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg bokk bokk suñu doyen Habib si sax bu bëggee bokk bokk loolu mooy démocratie kon nag bu ñu jaayee doole Ousmane sonk na opposition bi yëpp taxaw te bañ a nekk seen roq di ñaan ñu éliminer ko loolu ku ko yaakaar defa ne militant yi Ousmane Sonko bu ñu éliminer Ousmane Sonko dañ lay voteel boobu da ngaa xamul li xew kon nag. damay lancer appel à l'opposition ñu taxaw ci dëgg Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu retirer ay fiches beneen bi mooy sénégalais yi Ousmane Sonko li ko dal yépp yéen a tax Ousmane Sonko bu doon mbiri boppam kese la kon lii ko dal du ko dal tey parce que ay moroomam fa muy liggéeyee ñu ca ëpp ca ñoom am nañ ay milliards parce que man taxaw naa ni le candidat bi nga xam ni moom lañ samp ñoom waa système bi te ragal Ousmane Sonko c'est un candidat milliardaire waaye milliardaire am lu mu ko jariñ fi mu jaar dans le noor fan yëpp ñu ngi koy yuuxu fu mu romb ñu sonkorisé ko mënta gañe ab centre de vote bay gañe élection présidentielle ñoom xam nañ ko léegi moo tax ku yëngutu ñun la doo ko fi defee gis ngeen ni tey même ñun conférence de presse bi dem nañ ca fañ ko waroon a defee defi pexe ba ni leen bu leen permettre ñoon ñu ñëw fi tey à la mi pour bëgg koo yàq loolu la fi président Macky Sall nekke dictature la nekke Sénégal maanaam bu kenn wax bu kenn ŋaang na jaay doole ñëpp bu ko defee ñëpp noppi mu def li mu bëgg a def maanaam def passage en force imposer Sénégalais yi président boobu nekkul ci seen xol bugguñu ko kon nag ci gàttal li ñu leen bëgg a wax mooy Sénégalais yi ñoo war a am taxawaay bu Sénégalais yi taxawee temm ne ñun ki nu bëgg def ko ci suñu xol mu wax ñu lu ñu doy ban bëgg koo dénk sunum réew day nekk candidat bu ko sénégalais yi taxawee jëmmal ko wax ko taxawee ko kenn mënu koo tee nekk candidat kon Ousmane Sonko waxoon na ko ne man lii tax ma nekk candidat ak ma man bañ koo nekk ci sénégalais la dépendre kon sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité parce que la souveraineté appartient au peuple. Jàllale kon li am. mooy candidat la boo xam ni sondage yi ñu def wane na ne Ousmane Sonko bu demee élection il gagne les élections dès premier tour. hypothèse yi gën a bon ci sondage mooy Ousmane Sonko day am 60 pour cent moo gën a bon ci Ousmane 60 pour cent sondage yëpp nee nañ même waa ji yi nga xam ne daa bëggoon na def troisième mandat te mu jula dem bu demoon Ousmane Sonko da koy gañe kim fi teg nag nga xam ne moom ab quartier sax mënu koo gañe mënu koo gañe ca Parcelles Assainies kan moo ko fa gañe Jamil Sané Jamil Sané kenn xamu ko ña ña voté Parcelles Assainies Ousmane Sonko lañ votel ña voté Padois ñu ca bari ci ñoom xamuñu woon may mun a jéey Ousmane Sonko lañ votel ña voté ca golf xamuñu Khadija Mayekor Ousmane Sonko lañu votel te comme ni ma koy waxe bu ñu tey jii Ousmane Sonko su jëloon responsabilité à l'époque bañ a yërëmaate jël ku ko neex teg ko à la mairie de Dakar ku Ousmane Sonko teg Dakar waaye votel parce que Ousmane Sonko et majoritaire à Dakar moo majoritaire dans toutes les régions seen candidat bi laaj na ab question kenn tontooguma amadu Ba ban quartier la mën a gañe Sénégal nan ma ko wax nan ma wax rek ban quartier la mën a gañe man kay ba léegi maa ngi laaj question bi ban quartier la amadu Ba mën a gañe au Sénégal boo xam ne sénégalais dañuy rang di votel Amadou Ba kon nag liy dëgg mooy munoo fee nekk amoo candidat bu mën a gagné Ousmane Sonko nga ne par force damay éliminer Ousmane Sonko pour faire plaisir aux Occidentaux pour faire plaisir à la France pour faire plaisir à des lobbies yoo xam si ñoom Amadou Ba moo leen gënal parce que Amadou Ba su ñëwee comme ni mu ko waxee continuité lay def mooy li Macky Sall di def nii lay continuer def mooy lan mooy xale yi dañuy continuer di jël géej gi di dee mooy xale yi dañuy continuer di jaar Nicaragua pour dugg États-Unis ci jafe mooy xale yi bu ñu jàngee ba pare du am liggéey mooy xale yi. bu ñu feebaree ñoom ak seeni i waajur duñ am fu ñu fajoo li ngeen gis nag bërki dem mooy jigéen ñi am si ñoom lañ bundu xataal fii ci camp jaay leen doole ba ñaar ci ñoom ñu yóbbu leen à l'hôpital parce que dañ leen a gaañ kooku wone na nag Ousmane euh, Ousmane Sonko nag quand même Macky Sall ragal na ko aujourd'hui nag li mu bëgg mooy toroxal sénégalais yi parce que soo bëggee toroxal sénégalais mooy toroxalal jigéen jigéen kenn du ko toroxal ñun Sénégal xamuñu toroxal nit parce que réewum teraanga mais rawatina jigéen ñun duñ toroxal jigéen kon Macky Sall toroxal na jigéen beneen bi mooy Ousmane Sonko mi ngi defaat grève de la fin xam nga lu ko waral mooy Ousmane Sonko dafa déggal kilifa yi dañ ne ko arrêteel sa grève de la faim mu arrêté Sénégal gépp gëm ni suñuy kilifa diine bu ñuy wax dañuy wax ak ñii wax ak ñee mooy bi ñu waxee ak Sonko déggal na leen comme nam leen déggale woon en mars 2021 bi ñu buggee dëbb dëkk bi booba dëkk bi la ñu waajoon na dëbb booba ñu ngi waaj a dëbb dëkk bi sunu xalif général sëñ Mountakha Bachir yónnee ni bu leen dëbb dëkk bi Ousmane a ngi fekkee réunion ba ñu ngi ko defee ca Fan City ñun ñi ñëpp ñu bëri ci ñun fekk nañ ko ñu ne ko sëñ Mountakha bu ñu ñaanee ñu may ko moo tax ñu may sëñ Mountakha. Jallale TV bii yoon it bi ko sëñ Mountakha ñaanee may na ko bi ko yeneen kilifa yi diine yi ñaaneet may na leen mais liy jafe-jafe Sénégal mooy kilifa yi waa ji buñ ko ñaanee du leen may loolu mooy dëkk te jàmm nag ñaar ñoo koy séq. Ousmane Sonko nag bu ñu ko téyee ci prison bi di ko jaay doole di duma ay jigéenam jël ay ñoñam ku ci bind benn benn phrase ci Facebook sax ñu dem jàpp la mais Ousmane sonk mënul def leneen dul grève de la fin parce que loolu rek la am moo tax muy grève de la faim ndax wone leen koy jaay doole dafa ëpp kon nag tey mi ngi ci lu mu gàtt gàtt cinquante cinq jours de grève de la faim yoo xam ne amoon na rupture pour li ma leen fi wax bi mu commencé waateeg léegi. ku ne xam na ne boo defee grève de la fin ba sa yaram loo même boo nekkul euh, ab médecin xam nga ne diir bi mu dagg su reprendre danger la Ousmane Sonko nekk te lu ne mun na cee am kon nag li ñu bëgg mooy mu bàyyi jaay doole bi moom Macky Sall te bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram parce que ñoom ñoo ko jàpp te loolu la loi bi wax boo ko jàppee le jugement est anéanti de plein droit mooy lan danga koy bàyyi mu dellu këram bu delloo këram di dellusi nag nga koy attewaat ci procès Adji Sarr bi loolu mooy yoon. kon nag loolu bu ko deful mooy day jaay doole léegi nag cendee la mii nga xam ne moom moo ne du jox fii su Ousmane Sonko yi Ayib Daffé moom cendee la ñun dañuy rek dañ koy récuser na cendee la tekki ndombay tànkam moom ak maître Sidiki Kaba pourquoi parce que maître Sidiki Kaba mi ngi doog a nekk ministre de l'intérieur dossier Ousmane Sonko bi amoon na ci une occasion bu bu mucc ayib pour wane ne moom élection yi ñu jëm dina ko jaarale yoon. mais yow bu fekkente ne élection yi demagul te yow candidat bi war a nekk candidat comme ñëpp da nga koo bëgg a xañ mu nekk candidat kon léegi ñun nan lañ mën a gëmee ne bu élection yi ñëwee day jaar yoon ku la dig ndékki joxu la ko añ jot nga toog ba 16 heures añ bi tegewul boo fa toogee de xaar reer boo dee ak xiif dangaa ngaa xaru liy dëgg mooy opposition bépp war a ànd ak Ousmane Sonko ñu exiger que mu teg lépp ci yoon. bu ko defee ñu dem une élection libre et transparente ñëpp bokk parce que loolu mooy yoon maintenant di terminer ak